jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuy nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne tey nag dañu fas yéene dalal xale boo xamante ne vraiment temps yi gis ngeen ko li muy def ci réseaux sociaux yi mu jug ci combat boo xamante ni combat bu mag la woon combat boobu nga xamante ni mu ngi doxoon ci diggante Alma ak zéro arrière mu nekk combat boo xamante ni combat bu neex la mbokki yi dañuy dem seetaan combat bi su ko defee ñu leen invité bi ay ca ñu dem. jàmm ji wan ginnaaw. arbitre arrière moo wan kanam. ñoom ñaari xale yi ñu ngi door na ko daanu waa. waa. waa. waa lii lan la waa lii lan la waa almaami lu ko dal looy la zéro arrière arrière zéro arrière arrière door mu ne këpp waa lii lan la waa lan lay wax waa koñ ba hee ay waay zéro arrière xamul sax lu ko daan Adama zéro arrière xamul sax lu ko daan ndeysaan oh Alma da koo dóor mu daanu ndeysaan Alma da koo dóor mu daanu ay waay zéro arrière waay zéro arrière na Adama arrière na. invité bee ngi noonu Alma bu Kër Mbaye Fall doomu Kër Mbaye Fall doomu Saalum Saalum bi maa ngi lay nuyu baax di la siyaar. waaw maa ngi lay fay bàyyi gannaaw sant yàlla bu baax julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur hmm. gërëm suñu sëriñ Mawlana Ibrahim hmm. di nuyu àdduna di nuyu sama gaay yu ma àndal fii hmm. comme alma deux ak gaayam yi ñoom suura gaay yi maa leen nuyu waa di nuyu ñëpp mooy loolu di leen siyaar baax di nuyu ku ma fa sa allemand maa ngi lay nuyu rawatina waa Saloum région de Fatick département de Foundiougne Kër Samba Gueye maa ngi nuyu waa Kër Thiendou waa Kër Serigne Dia waa Mm-hmm. képp ki Saloum Saloum maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar mm-hmm. di nuyu sama nijaay yoo xamante ni këram laa jógee mm-hmm. di nuyu waa kër Mbaye Fall gi yëpp ku luum bàyyiñ kenn Alma lan moo la ci làmb bëgg-bëgg bëgg-bëgg mooy la damaa làmb moo ma neex rek ma am te nekk mbër li ma dugal ci làmb hmm. amul kenn koo xamante ni daan nga ko gis muy bëree wala yu mel noonu mu neex la nga dugg ci làmb non non da ngaa rek fëccee ko dugg xanaa suñu benn sama benn mag koo xamante ni maanaam ñoo bokk ñoo bokk dëkk hmm. Mm-hmm. maa ngi nuyu bu baax moom nag Gambie la nekkee. Mm-hmm. waaw moom moo fiitoo Gambie. Mm-hmm. moom ma fiitoo Sénégal dañoo tas. waaw kii jaar fii kii jaar fële. ñu boole andi ca dëkk ba. bi nga xëyee ne da ngay bëre say mbokk da man nañ mën naa ànd ñëpp a si ànd. waaw affaire bi sama waay gëmuñ ko woon fu mu leen ñëwee la. ndax làmb ji ma njëkk a ngeen Moussa Gueye. làmb ji ma njëkk ngeen Moussa fu ne. suñ pegg dëkk la rek. waaw ñoom ñu ngi bokk commune de Nioro Alassane Tall. Mm. làmb ji ma fa njëkk a dem sama saafara sama waaye ndoxum suukar la. ndox ak suukar. waaw saafara ndox ak suukar mooy lan. sama rakk boobu mu ngi jur wet. Mm-hmm. ñëw julli si tabaski. mooy mm-hmm. damay damay dem làmb jël benn morso. laxas. Mm-hmm. banque jël benn bidon. xam nga taalibe dañu am suukar bekk. suukar bekk yi massage si lu bëri. def ko si ndox ndox mi. bu ma demee làmb ji avant may am combat naan naa ko mu jeex. naan nga ko ba mu jeex. <laughs> boo leen ndoxu suukar bi rek di naan. ah nu may def. da ngaa maroon naan boobu. boo maroon naan sax ndoxu suukar ndox mi nga xappoo sa yaram moom nu mu neexee moom nga xappoo sa yaram naan. ko. ndox mi kay avant mi am naan naan ndox mi ba mu jeex. Hmm. waaw. Euh, ñaata combat nga bëri ane. arène maa ngi six combat. six combat. ñaata victoire. quatre. ñaata défaite. deux bi ngay dugg si ci làmb. dañ maa daan yaakaar nga ñëw daan. boobu xalaatoon nga bàyyi xanaa. ba déedéet xalaat moo ko wax dëgg yàlla mosuma xalaat bàyyi de. soo xalaat bàyyi benn. après deuxième combat bi. mu ñëwaat daanuwaat. nga ñëwaat daanuwaat. ñaari defet yi da ko tegle. barki Bañes. <laughs> kon de bi nga demee xaw ma loo wax waa koñ ba allemand. <laughs> déet man maa ne wax dara gi xanaa ne sama ruq kay liggéey waaw wax dëgg yàlla mën na wax xaw ma ko. après loolu lan la lan la la juróo loo ci dégg. amul lu ci déggut ci àdduna. du mbër. du mbër. Hmm. tànk baaxut. Hmm. waaye du entraîné du mosuma koy dégg de. ah mosoo dégg du entraîné mosuma koy mais du mbër lañ wax tànk yi baaxut tànk yi baaxut xeex waaw day tiit. day tiit ci géew mënul dara. kii kay sama warul dëkk fii sax kii kay war fii sax war war na wax na kan Mbaye Fall dëkk. ndeysaan amul li ma ci déggut waaye nag yoonu ndaw du gaaw. nga ñëwaat sa troisième combat. nga war a tegle troisième défaite. ndax xam naa ne boo daanuwee. da ngay teg les trois défaites. waaw moom <laughs> moom da ngay génn làmb ji. waxatuñ moom bu la kenn bàyyiwul sax nga ni da ngay bàyyi. non ku naan kay arène bi laay bàyyi dem sa mbapat bi rek. Hmm. ba mu yàgg ma ñëwaat. léegi après nga jee def naan sa troisième combat. dama ko jël àllarba bëri ko alxames. àllarba bëri alxames. waaw lu tax loolu. combat bi gars yi ñu doon monté combat yi mu des benn combat gars yi kooku am problème adversaire gars yi woo ma. sur kii moo dem bëri grand combat bi ndam si yàlla si. Sile Balde Senior. ak Brise de Mer. Sadio Iba Mar la. waaw waaw. sur na kanji maa bëree la mu yor combat ba. après nag bi nga daanee nga def nan. waaye dafa ma lenn lu julli sant yàlla sama jëw dama ko dama. boobu nag kontaanoon nga de boobu moom dégg nga. non boo damaa xam ne buntu ubbeeku na. ndax sama waaye kuñ tëj ku ne buntu ubbeekoo rek mën ngaa ubbi yeneen buntu. Hmm. maa tëjoon. kon ba buntu bu ubbeekoo rek damay gis na yeneen buntu dana ubbeekuwaat. Hmm. te defaguñ si làmb dara na di ñaan yàlla mu yokk. Hmm. ngay continuer di daan di daan di sa combat bi mujj. arène nationale. sa hmm. diggante ak zéro arrière. waaw avant avant zéro waar laa fa fi laa fa am. booy waar ma bu sap. bu sap meen. waaw bëri ba mi-temps bu yàgg di métti. bëri ba mi-temps yow ba mi ma booy waar avant sama combat sama combat bii sama yu ma bëree yëpp bii moo si gaaw comme nii ah. bii rek moo ci moo jàppante. Hmm. bii kese moo si amul jàppante ma sama combat damay jàppante. gàllaaj moom wuy na la moom gàllaaj Saalum wala boobu kaa kaay ma joxagul ma de li ngay wax. non man amaguma gàllaaj li nga fa indi lépp. silam ci géew bi ci ay gàllaaj. non non arsenalu mystique. moo loolu di ndoxu xorom. loolu ndox laay tànk noonu rek si rëbbi ne sama jël xorom rek. man ngay waxal yow laay wax bàyyi jili. ah ndànk de. comme nga ñëw ci combat sa diggante ak arrière. bi ngeen ñëwee. arbitre na prip. nga lee toog moom. waaw baat ak tontu. dóor mu ne këpp man sax damaa tiit. ndax ah. xaw ma lu may wax balaa ma naan ñaari mbër yaa ngi leetoo ah. dóor nga ko mu ne këpp dóor mi ñii nee nañ dalut <laughs> ñëpp moom nangu nañ ni dóor bi dalut ñii nee nañ gàllaaj la da ko yeew bëggoon naa na zéro arrière moom toog wax dóor bi lan la non zéro arrière bu tegee ngir yàlla jëmërsiol laa nu lu fi nekk rek dama fi ne ndax làmb ji sos man na ko fay def la dëggeer naan la dëggeer ngeemul day la kaate ñëpp na waaw dëgg la dëgg la hmm. bu toogee na wax dëgg rek te yàlla tax wallaahi la si dama ko dóor te li ma la wax nii suñu waa écrit boo leen laajee ndax almaa dóor bi mu ngi dal wala di dal dinañ la wax na almaa dóoram bi baaxul. dóor bi daal. si gémme fii laa ko dóor. fii mun nga fee dóor nit mu daan. allah bakkan beeg diggante diggante bakkan beeg kii bi gémme ngi. Ah. laa ko dóor dëgg yàlla foofu laa ko dóor de. dóor ko ba mu yëg ni daal na. ah ab maa ngi liwaatu dama sumay cër wan ko na ko jotuma la. te wóor na ma ne sama waaye fekk damay dóor ma wan ko rek maanaam te ko ma yaramam ma ma wan ko rek kuu bi maanaam dina romb ndax hmm. njool la Hmm. mais dama naa sumay cër boo ko ne ko jotuma la te leer na ma ne ma fuggee loxo balaa tàlli ñar moom loxo bi ñooy ànd ba baax moom te bu am am na fu muy yegg rek bu baax day tëdd far saa du ma ndaama ah, sa loxo yi de moom foo ko dóor te caaxaanoo buntu war naa fee. na yàlla door jàmm. <laughs> mais nga dóor ko mu daanu nga jékki gestu jàkkaarloo public bi waxoo de dafa benn geste. boobu loo doon xalaat defet yi tegle woon. xalaatu xalaatuma dara koñ ba wala ñan nga doon xalaat. am nga laa xalaat nga lu ma xalaat. Hmm. mooy koñ bi am ngeen bër. koñ bi am ngeen bër. lii di dara fu ma jëm sori na te yeggaguma kenn xamagul ma kooku ba ma koy jël soraari weer am na sama mi hmm. ma jël ku làmb xam naa jël ko am coow quoi ma ne ko man làmb xamul ma amaguma coow buy tax may tànn. yow sax amoo coow ba naa amaguma coow kenn xamu la. kenn xamu la ah xamuñu la. xamuñu ma mais mbooloo mi ngay indi stade fu ñu la toppee kon. yàlla seetlu na sama premier combat mbooloo ma fa newoon ba léegi indeegu ma ko. Hmm. te combat bi ah, xam nga samedi la war na doon la war na doon. liñ ko toxal na moom moo moo rey ah, sama gars yi mercredi nga bëri wala mardi. mercredi. mercredi waay barki yàlla mais nga bëri samedi bi. Hmm. samedi bi kon na nga gis lu saalum saalum yëpp daw ñëw. laa ilaha mën a sot dañ lay sotal de. gars yi dañuy sotal. waaw ah, sa mbokk saalum saalum yi dañ lay sotal de. bool bool ñoo mën a sot de saalum saalum la ñu sot. <laughs> kon kay dugal bawol. bawol jë ma fa. dugal sama deuxième fa laa ko jëlee. Hmm. waaw mooy sot bus. sorti bus men. moom ma daan premier combat am man la daan. sorti bus de comme dóor kaaw kon mu jëwoon kaaw mujj laa dóor nga daan. sorti bus bu ma kaaw lamb ji yàlla na yàlla dolli jàmm mais mbër kaaw ma du yoon. mbër kaaw ma du yoon mbër yanu ma ma du yoon. man bëri ma naa mën a yanu. a mucc ci mbot moom yanu moom mun nga cee muccoo ci moom. mu maa si si. dóor mu daanu tamit muccoo ci. mais mbot moom yàlla nañ si yàlla musa. Ah, ah mun naa ne de. man ba beneen sport combat yàlla nañ si yàlla musa jël yi jël yi jaram la dóor mu daanu. Hmm. ak mbot ak yanu. mbot bu bu tege fu mu war a tege. Hmm. doo xam fooy dal. dóor mu daanu nga bañ ko te teg ko sa adversaire. non te bu zéro arrière. non yàlla ko dogal mbir yàlla man damay ñaan yàlla mucc si rek waxuma ne sama waay dama siy mucc mbir yàlla damay ñaan yàlla mucc si. yàlla mais yow ñaanoon nga yàlla dóor ko mu daanu bëggoon nga dóor mu ñaan naa yàlla dóor daanu yàlla dóor mu toog kee ñaan ay continuer kon bëgg nga ay dóor man daal làmb su ma ñëwee na nga tëdd ma taxaw wala nga tëdd ma toog sa kaw man lii laay indi làmb xaccoo ma bëre xaccoo ma fecc. Hmm. xaccoo ma xeex mais daan laay xaccoo man si làmb. Hmm. waa daan. koor gi koor gi mbër dina woor. man damay woor man Saalum Saalum la ñun fi ñu commencé woor léegi Saalum Saalum nga kat ñan ñoo dul woor bawol bawol non di du ma wax bool bool de. ah sama bopp laa ñaamur ñaamur yi ñoo dul woor. ñëppay woor. ah, ah kon gaaw mais boo déggee ma la Saalum Saalum laa. waaw ñun fi ñu commencé xam nga lu ñu commencé. Hmm. su da ngaa woor da am xaaju mburu ak kaasu café ba mu fees. xaaju mburu bu dee da ngaa woor. bu dee da ngaa woor. bu dee wooroo bu dee wooroo. waaw ah. toq mburu ngay am ak digg kaasu café. <laughs> mburu bi ngay wooraat. mburu ma taxoon ñuy woor nag. <laughs> Ah, fekk min nañ ko Mm-hmm. waaw miin nañ ko. Mm-hmm. war moo dëgg yàlla jaaxul ñu sànq maa ngi koy wax gars yi kan la maa ngi wax gars yi fii moom saa yi. Mm-hmm. mbaa lii yàlla la de. ah déet di ko <laughs> daa ah? di ko trop. sedd la guy de. waaw àll bi saa maa ngi koy dugg mais daa tàng jiir sama dugg damay rus a jooy rek mais kooru damay jooy de. Ah. bilaay wallaay. kooru Ndakaaru moom neex la moom. non kooru Ndakaaru ah, lu ñëwagum bog bog <laughs> eh, actuellement promoteurs yi ñu ngi lay contacter. boobu ba léegi sama waaye ma toog nii kenn waxul nii wala. wowuñu la waaye kan moom may woo Saliou Bamba yor sama licence man te tout le temps maa ngi woote man dama combat ba mu jàllee waroon a am trois bu ma bëree ba ma ko woon ko balaa bëgg a bëriyaat. billaay wallaay est-ce que dóor mu daanu bi tax ay adversaires yi di loolu nag sama waay bu denee moo tax sama waay mbëri di ruux ah mbëri bee boo ku si baykat nga daan bay de. Hmm. waaw man de baykat laa man moom sama waay bu ma demee ba am lu may ruux si làmb gi jàmbaar xam nga dama bay nag yaa nga dëkk ba suma fas yaa nga dëkk ba mbaam yaa nga dëkk ba. am na nag. waaw paa bi am na nag. yow laa wax. non man amoon nag. Ah, doo génn ci lutte traditionnelle bi di jël ay nag ni say morom. lutte traditionnelle mos naa dem di bëri simple. di takk sa ngemb di dem dimanche passé demi finale la demi finale laa ñàkk ñaari nag. fan. dimanche passé ne benn dëkk bi naan daan doxul maa xeex sax de ku mu dem bëri fa la dëkk. Hmm. génn naa ko ñaari yoon géew bi temps bi jeex na jox ko tuwaar ma doroñ ma ko fay def daf nañ ma ko ñaari yoon daf nañ ma ko mën a rakk ji duubal defaan nañ ma ko ba dimanche passé nee ma nag aussi jagle moo ñëw ko ñëw toog. li ngay daan demi final ñaar nag bari na de. demee nag ñaari nag yee dëgër xanaa. ñaari nag waaw mën naa ah? a xool ba xam ne. non non ñaar nag hmm. ko jël. yaa ren saa yi demi final dama topp rek. dem naa fi màkk ko woon sama combat sur arrière ba mu taxawee dem naa màkk ko woon demi final la ma fa daan 500000. Antar Sarr bu ma koy daanee léegi ëpp nag trois ans wala war naa mën ay 5 ans wala 6 ans. te Andra Sarr Andra Sarr am na benn a jël na 32 nag. Saloum Diané laa ko daanee. Lamba Kaolack bu paase ku ko jël Famoura Baas Fa mhm. bu baasul. Mhm. bu CNC bu Kaolack tegoon. Mhm. ku jël poids lourd Famoura. daan naa ko. foo ko daanee njongoon écrit ba sa kaw dóor si suuf. nekkuñu fi yaa ngi topp rek naan daan naa diw daan naa diw Karim laa léegi ñaan dama wax sama waay dama wax lu doo xamante ne amut. fu koy kenn ku ci fu ma daanee ba ma wax laaj ma wax la. Andra Saloum Diané laa ko daanee. Fambuda njëngoon laa ko daane njool bu sonu mooy lu gàtt lu mën a bëree hmm. te mu fanaanoon na temps yee joof yor ak fils de Badlinski hmm. maa ngi ci làmb maa ngi jéem moom laa bëgg a doon de hmm. di sàkku si ñëpp ñaanal ma yàlla bakkan bi moom bu gàttut tolof tolof amut lu champion yi téye danaa ko téye képp ku war oto romb ma lu mu rafet rafet. Hmm. damaa gëm na yor nga waa yaa may njëkk a yàqule. macha allah loolu laa gëm. yor nga waa yaa ko njëkk a yàqule. noonu la fa demee nag. jërëjëf maa lay jaajëfal bu baax. <laughs> kontaan naa ci teew bi nga teew fii tamit. jaajëf. Hmm, maa lay jaajëfal bàyyi la nga tàggoo. waaw sant ak gërëm rek. Hmm. sant gërëm rek. sant sama fan si club. dañ may jàppale su ma amee kenn ku ci ne sama génne sa 5000 5000 di ma jox. maa leen sant bu baax leen gërëm. di nuyu sama nijaay yoo xamante mu ngi Angleterre. daf may jàppale maam góor ak njaga ñoom dañ may jàppale mm-hmm. ak sama nijaay nekk kaw yëpp waaye nag man wax dëgg yàlla man may toog di sant di gërëm koo xam ne naan la kii mu may jàppale te jàppale ma na ci mbëri man na du ma ko def ku ma jàppale ma wax la ku ma jàppale mm-hmm. la dinaa la maa ngi lay sant maa ngi lay mm-hmm. na daf may jàppale sant naa ko gërëm ko njëkk yi daf may jàppale sant naa ko gërëm ko sama rakk laay mu ne Espagne daf may jàppale koy sant moom di ko gërëm ak jàppale ok ñëpp la jàppale ak suma non du ñëpp <laughs> ma ma maa bëri ñu ma war a jàppale te ñëpp te gisu te gisu leen du ñëpp alma deux mooy kee toog alma deux waaw du mbër mais dafa jël turam suul ko jël sama waaye sama tur teg sa koom mu doon ko baax mm. sonn sumay mbir lool mm. waaw di ko sant bu baax di ko gërëm ak mm. ma fi yaayam bi ñu may ànd ñëpp ma di sant waa Kër Serigne Ndié waa Ngeen maa ngi sant képp kiy bëggee allemand waa kër Ba Penda Ndramé Iskal kër Ousseynou Dieng kër Alassane Diallo. Hmm. ba kër Thiendou gu ma dëkk. Hmm. maa ngi sant waa kër Saalum yëpp daal. Hmm. su ma limee dinaa jub ak mbër yi fa nekk yëpp. di profité di jaale suñu benn mbokk mbër toujours ma sama xel da siy génne bu ma nee interview. muy Petit Balla ñu gën koo xam si njànko dëkk ba ngeen Moussa Gueye. ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax ko moo dee déggu métti déggu ñu bett. ndeysaan wallaahi asiim. danañ ko bëgg làmb ku baax ku am mm-hmm. yitte ci doomi aadama mm-hmm. yàlla na ko borom ba jéggal te yërëm ko xaari ko àjjana firdawsi ak mboolam kum fa fekk ak mboolam ko fa fekk mm-hmm. di ñaanal sama mag tamit Cheikh Tidiane yàlla na yàlla na moom it comme noonu rek yàlla na ko borom bi jéggal yërëm ko suma rakk Pape Cissé ak képp koo xamante ni jiitu nga yàlla na la borom bi jéggal yërëm la xaari la àjjana si barke alqurani karim maa ngi nuyu sama rakk Leus ak Cissé Teranga Dame Cissé patricienne ñëpp maa lu di sant. di sant ñoom Ibrahima. mafia Marseille bi. waa Kër Mbaye Fall gi daal saa yi boo ko nar a taw di sant. naa di lim gërëm ñëpp daal day métti. almaa mu ngi gërëm maa ngi gërëm ñëpp. Mm-hmm. di gërëm sama mag Talla. Mm-hmm. sama rakk Ibrahima Cissé. Mm-hmm. Alaaji Moussa maa ngi sant sama mag ñoom Ali. Seet kii sonn si man la Ousmane Sakho. dañuy sonn si am na solo Seet Cissé Ousmane Sakho. ñiy sonn si man la Seet kooku am lu mu déggul si man. di sant waa Santhiou Aliou Ndiaye. di sant waa Ndiongone di sant waa Mbul Jàmme di nuyu waa Njambang ñëpp waa Surmang maa ngi nuyu ñëpp fépp foo xamante ngi fiy sukk ñu ngi nuyu ñëpp di wax ne kontaan nañ di nuyu waa Mbulum Mbulum. am hmm. nuyu jàmbaar xale laa. Hmm. mais sama gannaaw dafa yaatu de. waaw kay wane nga ko ñu nga sant ñëpp. mag du ko sant di gone koy sant. <laughs> maa ngi lay jaajëfal bu baax ndeysaan mbokk yi Alma la ñu dalaloon fas yéene waxtaan ak moom lu baree bare ci làmb xale la boo xamante ne vraiment maas bi ak bind bi làmb am nañ ci moom yaakaar parce que wane na ni vraiment am na yëg-yëg ci làmb mbër bu dugg ci làmb bu tegle ñaari defet di continuer ba yàlla may la ndam yi nga am macha allah dañ koy féliciter mbokk di leen jaajëfal di leen jox di daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf. Thank you.